asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi tedd yi ñuy déglu te dañuy seetaan bu ngeen jàkkaarloo ak jataay bu tedd bu barkeel bii ci waxtu wi ci Touba ñaŋ Ñang pencum Serigne Modou Fadiama ñaŋ seen xel dana war a dem si bisub diine bisub lislaam bis boobu nag di ndigal lu bàyyi ko ci Serigne tubaa Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit ñëw ci Serigne Bara ñaŋ xalifa Serigne Modou Fadiama ñaŋ mu ànd ko ak mbokk yëpp mu war a doon gaaw fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2020 fii ci Touba Kër Ñang muy bis bu ñuy fàttalikoo ak a ñaanal Serigne Modou Fadiama Ñang ak Serigne Modou Xëri Ñang waaye nag di ci fàttaliku waale jàmbaare lislaam ji nga xamee ni waxtu wii daaw rek moo fi nekkan woote bis bi ànd ko ak njaboot gi ànd gu rafet muy Serigne Cheikh Ñang bis beetam ren ñu tuddee ko soxna Ami Cheikh Mbacké bintu Xaadimu Rasuul. Abdoul Aziz daal mi ngi fàttaliwaat ak di wootewaat bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom ñu ngi leen ci woo sëriñ Mbuubu CCBM Alaaji Paate Jaxate sëriñ Balla Ndiaye sëriñ Bamba Meng sëriñ Basiru Bousso sëriñ Maodo Si Dabaax ak Alhaaji Ñang bu Nget ak sëriñ Sam Bousso sëriñ Mbàkke Daba Sarr ak sëriñ Cheikh Sarr bu Wakaam ak Alaaji seex Gede Mbàkke sëriñ baa ngi leen di woo ci bis bi kon ñu ngi ci woo Saalum kenn juutuwu leen ci ndax bis bi seen bis la ak mbooleem kaajoo rek fépp kon ñu ngi woo nag waa dëkk bi ñëpp ñu nga xamante ni ñoo bokk ci kër gi di woo waa ndakaaru waa saalum waa kajoor waa bawol waa bitim réew fépp foo xamante ne ni ah, buñ la wooyee nga ne ñang suñu xaadim ne ne mu ngi leen di woo ci bis bi bàyyiwul kenn seti sëriñ Modou Fadiama yëpp déggal waxtaan wi nga xam ne moom lañuy def lu jiitu màggal gi ñi koy tuddee conférence daa ko def at mu jot te nag ñu dara jaale ko suñu maam sëriñ Massamba Kanni Bousso def waxtaan wi nag mooy ko daan def at mu jot mooy sëriñ Mbàkke Abdourahman kon ñi ngi ciy woo bokk yëpp fop taalibe nekk te yaakaar sëñ Modou Fa Jama Ñang ngir jëmmi sëñ Modou Khoury ñu ngi lay woo ak foo mën a nekk lu ci ëpp doole nag mooy Saalum ndax Saalum nag moom la sëriñ bi féete woo woon foofu fépp ñu ngi leen di woote yàlla nañ tamit sëñ Tuubaa tax wax ne bis bi nag mi ngi koy woote tàmbale ko ci njabootu Serigne Touba gi bu tuddee njabootu Serigne Touba gi nag bu tuddee Serigne Mountakha yóbbaale na ñëpp. di wax ne mi ngi wax woo El Hadj Modou Mamoun Niang mi nga xam ne tey mën naa ne mbo njabootu Afe gi moo ci mag ak Serigne Thierno Bousso mi ngi leen ci woo di leen ko fàttali ak ñi nga xam ne ñooy waa Ngédi te El Hadj nag nekk ca bopp ak bokkam yam fa nekkal bàyyiwul kenn. Serigne Amdi Fall. Murid Saadix di wëllëree mu yàgg ak moom bis bi dañ ko daa def waaye dañ ciy fàttaliku sëriñ Cheikh di ko ci ñaanal yàlla yokk ay leeram ca barsàq sëriñ bi nag dafa wax ne nañ fonk njàngum alxuraan mi mboolem luñ fi daa wàcc ci kaamil nu mu toll nañ ko yokk mi ngi wax nag mi ngi woo président de la république ci bis bi di woo monsieur le maire Abdou Ka di wax ne mi ngi ciy wooyit mbaki Mbacke Abdou Mbacke Ndaw di ci woo président conseil départemental bi Serigne Fallou Mbacke di wax ne mi ngi woo préfet ak sous-préfet arrondissement Ndam ak gouverneur Njaareem ak ministre de l'intérieur bàyyiwul kenn di ci woo élus yi nga xam ne ñoo ne ci département bi muy mbooleem député yi nga yi fi nekk ak conseil économique social yi te Serigne Bassirou si Serigne Abdou Khoudoss ak rakkam ji ñuy wax maam góor ñang Serigne Abibou Mbacké Fallilu ak Serigne Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor kàddu Serigne Touba ak Serigne Modou Samb mi nga xam ne moo mag ci sëdi ak Serigne Galas Bousso bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn. bis bi jàng alquran la ak xasida ak berne ak ziar bu ñu demee ba six heures ci ngoon incha allahu ci la ñuy amal cérémonie bi mu war a doon gaaw fukki fan ak ñeent ci weeru mars deux mille vingt ci fii ci pencum Touba Kër